bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci yenn ci ay leeral jëm ci wàllu yàpp fas bi nga xamante ne nii moom la way takk der yi fekkoon ca yaraax ak ña nga xamante ne ñoom la ca yoon yo jotoon a teg loxo bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu tukkeekoo ci journal l'observateur lu bees xew na ci kuréelu jaaykatu yàpp fas yi nga xamante ne nii jotoon nañ leen a teg loxo foofu lay ca yaraax waa gendarmerie jotoon nañu teg loxo ñaar ci ay boucher maanaam jaaykatu yàpp ñoom ñaar ñooñu leen dañ leen a jàpp loxo ci poos maanaam dañoo fekk ci ñoom ay firnde yuy wane ne ña nga woon ca mbir ma ba l'enquête ñu fekk ci ñoom mooy yàpp fas bu sakkan loolu bu ñu dugaloon ci ab réfrigérateur beneen ci ay frigo yi nga xamante ne nii way takk dere doon nañ ko saytu fekk nañ ca ñaar ci ay bopp fas yu weex tàll kenn ci ñaar ñu ñu jotoon a teg loxo ci mbir mi ab jaaykatu yàpp bu sant njaay la la mu wax nag mooy googule ndawal li ko taxoon a jóg mooy rabu àll ya féetee ca réserve de Bandia daanaka ci yooyu lee kàddu ci la avocat yi ko doon layal sukkandiku ba mën koo génne ca prison ba naam génn na waaye ka moom mooy waayam ja nag euh, tur wiñ ko gën a xamee mooy njool moom nag daanaka moom moo doon fees euh, fas yile ginnaaw ca moom la ñu fekk ñaari bopp fas yi ba ñu ko laajee lu waral lu ni mel la mu xamle mooy ñaari bopp fas yooyu ab commande la woon maanaam dañ ko ko laajoon ki ko ko laaj di ab sëriñ boo xamante ne daanaka daf ko soxla woon ngir njabar waaw ab njabarkat bu mag boo xamante ne daanaka nekkul sax ci biir réew mi waaye dafa ñëwoon biir Sénégal ngir fekkee si fi ab xew-xew ca la ko commandé waale ñaari bopp fas yooyu le nga xam ne daf ko yitte woo woon ngir liggéeyu sëriñtu ak njabar gi nga xamante ne moom lay na waar lii nag la olof njaay di wax naan mar naan bu la taxee naan petit bu robinet tijjee nga rus ana waaja ma nga prison ana sëriñ ba dem na yoonam lii daal ku mu yeewul dootoo yeewu ci àdduna Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal